asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen dellu si di leen nuyu di leen siyaare tey nag ñu ngi fii ci dëkk bi nga xam ne moo di Aliya Aliya nag ki nga xam ne moom moo ko ci moo di seex Mouhamadou Fadal Mbacke di ñaareelu xalifab seexul xadim doonoon koo xamante nii nag dëkk bi tey li tax ñu dikk fi ngir xamale leen ak dëkk bi waaye ku tudd dëkk bi tamit di nga tudd seex Mouhamadou Lamine Baara Mbacke ibnu seex Mouhamadou faadal tey nag ñu fekk fi ki nga xam ne moo di eh, ki nga xam ne mooy jëwriñu dëkk bi tey wala kenn ci njabootuk Serigne Touba di Serigne Moustapha mi nga xam ne ak bi moo ko gënal lu nekk te moom lay doxe moom lay waxe tey ñu fekk ko ci dëkk bi nag ngir mu xamale noog dëkk bi ndax bari na nit ñi lu ñuy jege lool te du tax ñu xam ko te buñ ko xamee dina tax ñu jox ko wàcc waayam sëñ bi ginnaaw buñ la nuyoo siyaare la bu baax a baax tey ñu bëggoon a xam dëkk bi ñu nekk di Aliya mooy lan Aliya ku ko bëgg xam nan ngay def ba xam cosaan léegi yoon. wasalaatu wasalaam. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi sant yàlla. di julli ci yonent bi di jaajëfal xaadimu rasul. di gën a yeesal. di gën di feddali njëbbal ci seex Muhammadul Fadal te buntu bi di Cheikh Mouhamadou Lamine moom Serigne Fallilou sëñ Saliou li nga laaj am na luñ ci xam ndax sëñ Fallou moom mbiram lépp nit mënu koo xam waaye nag am na luñ ci jot a xam ndax 1948. la Cheikh Mouhamadou Fadel gën a sax fii ci Touba ci Touba Aliya bi mu ñëwee it dafay waat ne maa ngi fi fas yéenee liggéeyal sama sëriñ ba xaadimu rasul ci liggéeyam bi nga xam ne mooy suñu ndono muy jumaay Tuubaa ji lépp loo xamante ne bii am nañ ko fi yàlla buñ ko ko moyalee suñ ko ko moyalee lépp yàlla mel ni xorom loolu defe naa am na mucc ndax fii ci dëkk bii dañ mës a tege bët gooñu gerte goo xam ne gi watt nañ ci téeméeri doom téeméeri yoon muy junniy doom ci benn gooñu gerte Touba Alieu gii la ma sa am tënk bi nga xamante ne bi nag mooy tënkub sëriñ moom yàlla dimbale woon na ko ci muy sëriñ Fadilu hmm. muy ja mu hmm. jàng julli eh, ak bay ndax foo wëlbatiku ci réew mi danga teg bët kaamil boo xam ne bii ma Madul Fadil moo ko bind sooroor Touba bi moom firnde la fii la béye woon gerte googu lépp liggéeyale ko Xaadimu Rasuul jumaam ji am doomam joo xam ne nag taalubeem soppeem ku ñuy wax Cheikh Mamadou Lamine mu rafaatale ko dëkk bi 1958 dafa Cheikh Mamadou Lamine ñëw wuutu fi Serigne Fallou ci ndigal kon soo laajee dëkk bi dëkk bi am nañ ci xam ndax ñi nga xamante ne bii kenn mënut tudd yoonu murit te boole woo leen ci mhm. ku mel ni xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall bi buy sëriñ Cheikh Jëmb jaar na fi ku ñuy wax sëñ Gañ Jenn xalifa sëñ Issa Jenn sëñ Baara Jenn jaar na fi ku ñuy wax sëñ Thierno Diaw xalifa euh, sëñ Mat Diaw jaar na fi ku ñuy wax euh, sëriñ euh, sëriñ Cheikh Ndindi Ndiaye muy mhm. bàyyi alaaj Cheikh Ndindi bi yoro daale alxuraan ji mhm. jaar na fi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne bi ñëpp mënuñu doon lim fii lañ amee ngërëmal Serigne Fallou kon dëkk bi dëkkub xéewal la dëkkub liggéey la dëkkub teranga la ki nga xam ne nag moo la ko sëñ Fallou rafaatale woon moom mooy sëñ Baara mais jëf na fi ndax def moo fi def jumaa ji ci ngay gis ci penc mi natt ko def fi ay ndox def fi ay courant def jëmmal kër sëñ Fallou gi nga it ba mu ba ba ba mu demee ne mu demee hmm. kon moom bi nga xamante ne bii moom lañ ko bàyyi woon dëkk bi àggale na mission yàlla dogal nag mu dem àjjana. Mm-hmm. <coughs> bàyyi ñu fi ñu yar ci tànkam yooyu rek fas yéene nekk taalibu sëriñ bi. Mm-hmm. di sant yàlla bu baax nag ci eh, teew gi ngeen fi teew di xam lu ci lu mat a xam. Mm-hmm. fii nga xamante ne bii mooy suñu cër ci Touba. muy Touba Aliya. ñu sant yàlla bu baax di ñaanal nag ki nga xam ne moo fi nekkal. xaadimu rasul cheikh muntaxa te naw ko lool ci umelo ci ak taalube ci pas-pas ci yitte ñaanal ko yàlla yàlla bàyyi ko fi sàmm ko ba liggéey bi nga xam ne mu ngi ci loxoom yàlla xéewale ko ci lu kawe njortam di ñaanal it eh, ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Mamadou Fadil sëñ Abou Baraka yàlla sàmm ko wéral ko eh, ba lépp loo xamante ne bi bëgg na ko liggéeyal sëriñ Fallou yàlla gën ko cee dëgëral gën ko cee jàppale di ñaanal nag suñu peete mhm. Cheikh Abdoul Fattah moom Cheikh Mamadou Fadal ndax euh, tàgge bu ne am na jàppal diw mhm. yàlla dogal na moom mhm. moom lañ féeteel ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla sàmm ko wéral ko ba lépp loo xamante ni bii euh, naal na ko ci liggéeyal maamam ja ak waajuram wa yàlla gën koo dëgëral gën koo may xéewal gën koo may kattan gën koo may tal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Euh, fii dafa nekkoon daara nii la ko sëñ Fallou defoon. ak daara ji euh, daara la woon wala dafa mujjoon nekk dëkk wala. waaw fukki daara ak benn ñoo fi nekkoon yoo xamante ne bii kilomètre gerte kilomètre dugub. dafa waatoon ne lépp loo xamante ne bi jëlee naa ko fi lu lu lu dundal dongo yi ak def ko ci jumaay Tuubaa ji lu ma fi def yàlla mel ni xorom mm-hmm. loolu la waatoon bi muy ñëw fii mm-hmm. maanaam nga xamante ne bii mboolem li mu euh, liggéey ci jumaay Touba yëpp fii la ko doon béyee. bu mm. Touba Aliya. ginnaaw euh, sëñ Fallu nag la ñu nekk def Aliya village. Mm. natt ko ki nga xamante ne moo fi nekkoon ñaa ñetteelu xalifa sëñ tubaa mu Cheikh Abdou Lahad. Mm-hmm. moom moo ko njëkk a natt. bu ñu ko nattee ba noppi mu jox parents yi Cheikh Mamadou Lamine nag ñëw gën koo yaatal. ki nga xamante ne bii moo fi mujj ci waa kër Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul di suñu sëriñ ba. Mhm. suñu royukaay ba suñu yaakaar ya. Mhm. Cheikh Saliou. Mhm. ñëw gën a yàkkaliwaat gën a yaatalaat. waaye loolu moom liggéeyu natt yi moom ci seen loxo la jaaroon. bi noppee nag ñu jox comme mi xam mi xam euh, Cheikh Mamadou Fadal la. te Cheikh Mamadou Lamine moom moom la ko battale ñu jox ko palaa yi moom ñu jóg mu ut ab chef du village am ñu joxe pàkk yi. waaye bi mu nekk bi mu gëjee nekki tool yàggul ay tool la woon waaw. fii njaboot gi ñan ñoo fi feeñe fii sëñ bi nekkoon na fi am na fi feeñe. waaw fii ku ñuy wax sëñ Modou Mamoun mm-hmm. mm-hmm. euh, mm-hmm. na ñoo xamante ne bi fi la ndax am ay waa kër ku tedd ki. yu fi jotoon na dëkk. am naa koo xamante ne bii mook sama waajur bu jigéen ñoo bokk ñaari waajur muy ajaratu ne ne lay mhm. fii la nekkoon mhm. soxna Jaal Jaañ fii la nekkoon mhm. soxna May Baabu fii la nekkoon soxna Sooda Jeng fii la nekkoon bari na ñoo xamante ne bii fii lañu nekkoon même bi nga xamante ne bii sax sëñ Fall nekk na fi ba aafe sëñ aafiya mata daal jàng am naarub gànnaar la jël andi ko fii bu di ko fi jàng daal alxuraan bi sëñ bi demee nag ñun li nga xam ne moo fii suñu wet mm-hmm. eh, liñ ci def mooy mm-hmm. bi ñëwaatee nag yàkkaliwaat nañ jumaa ji yeesalaat ko mm-hmm. def nañ fii dara alxuraan ñu ngi saytu it lépp loo xamante ne bi yittey dëkk bi la ndax xëcc nañ fi am ndox ci suñu uh, xéewalu Serigne Touba gum ñu defal uh, ay addition d'eau yoo xamante ne bi waral nañ ko dëkk bi am na it ay ay courant yoo xamante ne bi ay taalibee ko joxe addiye def nañ ko ci dëkk bi. ñuy toog ci dëkk bi lépp loo xamante ni bi yittee dëkk bi la saa bu ñu xëyee rek ci la ñuy xëy di ko di ko saytu. tabax nañ fi benn poste gendarmerie. boo xamante ni bi fas nañ yéen sax balaa màggal gi. danañ ko inaugurer. Euh, tàmbali woon nañ fii benn poste de santé ci ndigalal sëriñ bi. centre de santé yàlla mën naa dogal moom it balaa yàgg dana àgg incha allah. turu Aliou yi fan la jógee. Euh, Aliou nag ku ñuy wax euh, sëriñ Aliou Bousso. waaw moo fi fekk si sëriñ Fallou fii. sëñ Fallu ni ko tuddal ma ko dëkk bi mhm. mu tudde ko Touba Aliya waaw waaye nag lépp ci Touba la rek mhm, Touba moom mhm. ndax fi mu nekkat nun dañ fee nekk rek waaye surgab sëñ Murtala la sëñ Muntaxa la noonu maanaam fenn foo xamante ne bi kenn am na fa lenn ku dul ki fi nekkal sëriñ amut waaye nag ku ci nekk nag da nga am miixa moo xam ne fa fa la la yàlla féetale nga féete fa waaye lépp nag ci biir moomeelu ki fi nekkal sëriñ Touba la waaw maa ngi liir léegi ci alxuraan ma gis ko fii jannati aliya waaw lii ndax day waaw moom ajana ju kawe lay signifié te loolu dëgg la ndax fii boo fi toogee li ngay nooyeeg li ngay gis rek lay wane la yow yaa ngi ajana ndax fii jannatin aliya la mhm. tasmahu fiha laaxiya mhm. fiha aynun jaariya mhm. fiha ashurun marfa lu dëppoon ak turoowu ah. dëkk bi waaw ay xéewal ngi fi barkee ngi fi lépp a ngi fi waaw lépp ngi fi euh, bi fi sëñ sëñ Cheikh Mamadou Lamine moom euh, bi mu fiy nekk dafa nekkoon daar waaye boo fekk na mu nekk dëkk moom bi mu na fi ay at yoo xamante ne bii Euh, daara ji nga xamante ne bii moo nekkoon balal. Mhm. dëkk bi mu doon jàngee alxuraan. Ah, tuxal si woon na ko fii ñu nekk fi defi béy bi ñu demee xamante ne bii ne natt nañ ko. Mhm. ba dëkk bi nekk ab dëkk. Mhm. ci lañ bàyyee mbéy mi fii. waaye daaree alxuraan la woon. kii nga xamante ne bii seede la ci. baayam. am na jamono yoo xam ne bi fi sëñ Falilou nekk muy alaaji ñang guy gi mii. ku ñuy wax Baye sëñ maam sëñ ñang maanaam maanaam Baye sëñ ñang ci ñi doon yoroon oto boo xamante ne bi daf daa indi ndox fi ndax boobu ndox amu fi mhm. moom mi sedd la ci ndax yàlla dafa dogal ñuy wax rek moom mu agsi mhm, waaw moom ci ñu sanc àlliya gi mhm. baayam ci la bokkoon ak bu ñuy wax euh, sëñ Boussa Sefoor sëñ Mat jëw Touré ñoo ñëpp fi la ñu dekkoon ak Baye ma Fari Njaay bari woon na daal ay kàngam yi sëñ Fàllu yoo xamante ne bi fii la ñu dekkoon doon jàppale sëñ bi ci liggéey bi ak di ko wettali ah. njabootu Cheikh Amadou Lamine ñan ñoo fi feeñe am fii. fii moom amul njabootu Cheikh Amadou Lamine ju fi xanaa ay jigéen. Mhm. am na ñaari jigéen yoo xamante ne baal ku ñuy wax ajaratu Xujo Jóob mooy seen waajur moom mi ngi fi ba léegi sax. Mhm. maam Boussa Mbacke la tudd ak soxna Xari Mbacke. Mhm. ñoom fi lañ feeñe waaye ñi ci des ñëpp nag yàlla dogal na Touba ñu feeñe. waaw ndax su fii moom sëñ bi dëkk fi woon dafi daan ñëw rek. dafi daan ñëw waaw. man nag bi nga xamante ne bi sëñ bi. dem na aj fekk laa laa nag ne gannaaw liggéey bi bàyyee nañ ma ko daal. Mhm. naa tuxu. Mhm. ñëw fii jàppal teel ko dëkk bi. Mhm. kër gi nga xamante ne bii ma nekkoon ca muy fee ca Daaru Minaan moom dama ko def wax fu laa jox ko addiya alxuraan dañ fay jàngale alxuraan léegi. xanaa fii bi nga ko fii def ñu bari xanaa euh, liggéey bu toll nii ak dëkk bi ni mel nii ñu bari xamoo amuñu woon xaw a yéem la naa la fii ni mel ak yooyu wala. côté bi waaw ñoom dañoo umpali sëñ bi rek. ndax mhm. sëñ moom. Mhm. Euh, tàmbali la la la wax waaye àggale moo koy def. Mhm. te biñ koy tàmbali dañoo waatoon ne bu buñ ci dee ñaan benn ndimbal kenn ku dul sëñ Fallu. yàlla bu mu àgg wala ñu di ci leb kenn benn dërëm. te li ci gën a yéeme nag. Mhm. mooy gone yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci sama daara ji li ma tarbiyewu ngir sëñ Fallou ak sëñ Baara. Mhm. ñoom ñoo liggéey bâtiment bi. lu dul bunti dénk yi rek ci biir kër gi lañ ko defaree. lu dul buntu dénk lii rek la fi galasu ku ñuy wax galasu ndur benn ministre defar waaye lu dul loolu rek mhm. gone yi nga xam ne ñooy muritu fii mhm. ñoo tabax bâtiment bi ñoo defar lépp eh, eh, naa fii sëñ bi xam naa ba léegi imaan Cheikh Modou Lamine bi mu nekkee xalifab Serigne Fallou nekk xalifab Cheikhul Khadim fii la waaj a fekk Serigne Fallou fa mu nekk waaw eh, loolu loolu ci mën a waxee waaw loolu moom daf cee jàngale ndax mhm. bi mu nekkee sëñ bi mu nekkalee Serigne Fallou nekkal yàlla dogalit mu dem ba sëñ Touba ganesi ko bi muy tàmbalee liggéeyam moom ci waa kër sëñ Tuubaa la ko tàmbalee. mën nañ ne diirub li mu nekkal sëriñ bi. deful fii dara. daal guy mbind la dem. dem kër sëñ Chouaïbou dem kër sëñ Abdoulahat dem kër sëñ Modou Moustapha. dem kër sëñ Bachirou. fu ne mu dem fa. def fa la mu fa war a def. ndax bu fekkoonte ne daa tàmbalee ci boppam. kon nag ndam léeg xéewal yi du mën a am mhm. waaye nag daf noo bàyyee sëñ bi mhm. te xam ne koo bàyyee sëñ bi rek sëñ bi dimbale ko mhm. ndax gannaawam kat am nañ sant nañ yàlla bu baax gannaawam te de demunu fenn nag gis fa kenn ndimbal ci kenn du ci état du ci sëñ bi loolu sëriñ Tuubaa ak sëñ Fallu waaw bisam bi mi ngi waaj a ñëw ñu bari xam ne Cheikh Mamadou Lamine euh, bis bi daanaka mook bi jógee bi muy waajal Kazu rajo loolu lu mu ci kii sëñ bi nga xam ne moom mi ngi waajal Kazu rajo war koo def ñu waajal ko ci turam ak lépp mu bàyyi ko loolu ban jeexit la bàyyi ci yéen ak loo ci. loolu moom xam ne dafa delluwaat ci sëñ bi rek. Mm-hmm. ndax moom léppam sëñ Fallu la. Mm-hmm. moo waral yàlla xéewale ko mu dem tëdd fee fu sëñ Fallilu mm-hmm. moo tax dañ na nag nun euh, bis bu toll bisu Serigne Falilou du nekk ci suñu kanam ba noppi ñu wutal beneen bis dat al Cheikh Mamadou Lamine ndax sëñ Mamadou Lamine yàlla moo ko lamale ak Serigne Fallou kon nañ ko ñaanal fii ay euh, kaamil salaatu ala nabi ay xasida bàyyi lépp sëñ Fallou moo waral maanaam jéemuñoo ber bisam dugal ko ci biir sëñ Fallou rek ni mu duggee fee ci sëñ Fallu daal. Mhm. ni lañ jëlee léppam dugal ko ci biir sëñ fal mhm. waaw. waaw moom dañuy wax ñëpp bëgg sëñ Fallu ni mu amee njariñ ku ci nekk di ko wax ay ñëpp danoo maase ne si alaaji moo gën a bëgg sëñ fal waaw loolu secret bi nan la loolu moom. Hmm. kii fi nekkaloon sëñ Fallu. Hmm. te namutoon dara ci kenn. Hmm. kurul sëñ Fallu muy Cheikh Mamadou Moussa Fadal. xam Cheikh Moussa moom. du waxal kenn pour lu ko neex wala pour lenn. ndax yàlla dimbale woon na ko ci lépp. moo seede loolu ci moom moo ne moom ñi mu xam alaaji Baara ci gën a bëgg sëñ Fallu xam-xamam boobu nag doy na noonu keneen kuy xam nga xam leen waaye gannaaw moom moo fi nekkaloon sëñ Fallu doon jëwriñam mm. bu noppi loolu ci alaaji Baara mm-hmm. loolu doy noonu waaw loolu moom doyoon mm-hmm. diggante daanaka yoon na loolu moo ko si Amadou Moustapha waaw am mosuñoo am benn jafe-jafe mm-hmm. ndax xam na ne mag mënusu koo mag te sëñ Moodu mag ju mat mag mag la mhm. waaw ju man ju nekk mag mhm. ci yëpp ci jëf ci lépp mhm. kon moom mu ngi woon ci gannaawam doon déglu ndigalam ba yàlla dogal li mu dogal mu nekkal sëñ Fallou li ma la waxoon ci euh, ne euh, nit ku nekk day am fu muy so sëñ Muntaxa moo fi nekk sëñ Fallou mooy xalifa bi mais ñun suñ péete mooy sëñ Abdou Fatah foofu lañ féete dañoo wax nag nañ ñeme péete mm. day xañi wërsëg mm. waaw mm-hmm. sëñ bi naa ñu lay sant taalib yi loo leen di wax ci bis bi ak noonu waaw ñu sant yàlla bu baax nag fas yéene dooni dongo mm-hmm. te bañ te bàyyi wax ji mm-hmm. ndax ab taalibe li mu fas yéene mooy daa war a fexe ba fépp foo mu nekk kenn du fa yab sëñ Tuubaa ci moom xitma bi gën a foor ci xitma mm-hmm. mooy loolu comportement fexe ba ku la gis rek xemmeem sëñ Tuubaa ci yow loolu nag mooy tënk ci jub di jaamu yàlla mm-hmm. te bàyyi coow li coow li bari te coow li amul benn njëriñ jërëjëf kon <laughs> ñu ngi sant bu baax <laughs> sëñ Moustapha leen ñëwoon nii ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di gërëm di ko ñaanal yàlla may ko fan gudd ak wér ba li mu yéenee liggéeyal Cheikh du faadal mu defe ko noonu ko soobee yaakaar naa ku nekk xam na ko mën na koo seereel lii mu wax nga xam ne ak taalibe rek moom moo ko ñor euh, bañ na ko ba ku nekk xam na ni muy doxee yal na ko suñu borom yàggal te wéral ko ci barkeb Cheikh Mouhamadou Fadal asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah